te it yi li nga xam ne tamit moo tax euh, ñu gën a tiit ah dégg nañ kenn ci kilifa yi ni moom pare na bàmmeelam ba pare Touba waaw man nag loolu buñ ko déggee ne maa ngi ñëw dañ ci tiit loolu tax na ba eh, depuis ci temps yi ñu ngi jóg di dox. Euh, bërkaati démb dem nañ ba gis ki nga xam ne mooy président de la république ak premier ministre ak ñu toogal yëpp ñu leen yéen yéen a yor nguur gi lépp lu ngeen xam ne mën ngeen ko def te du yëfit na te it day tax ñun ñu dal def ñu ngeen def ko waaw président ne moom mun nañu compter ci moom ba nga xam ne lépp lu yëfit na du ko def ñu ko doon rafet lu lool biñ fa jógee nag fii lañ jiblu si Touba waaw parce que am yaakaar lool am yaakaar ci kàddu gi am yaakaar ci ñaan yi moo taxoon ñu ñëw ba fi tey ah ñu ne day kàddu bu fekkee ne jóge na Touba jóge ci Serigne Touba ci boppam yaakaar naa ne Sénégal yëpp muy kilifa yi muy taalibe yi ñëpp daañ ko dégg waaw loolu moo taxoon ñu ñëw ak si ba fii di ñaan sëñ Touba di la ñaan encore di la fideli suñu coloré am yaakaar lool euh, pour sa kàddu jib ñëpp dal waaw ñëpp dal ñu euh, dem ci ay élections yoo xam ne day nekk si jàmm ñu génn si ci jàmm parce que loolu tamit moom moo mën a jik senegal waaw jàmm rek parce que fi mu toll nii euh, dëgg dëgg fitna xajul ci réew mi ak lañuy dégg pétrole yeeg ak euh, yeneen euh, yu ñuy dégg yu am ci yeneen réew yi fitna yi bañ mu agsi fii moo tax kon dëgg dëgg ñu am yaakaar bu rakaar lool waa agsi waaw jëm nag ci jàmm dégg na ni ko wax ni nga ko waxee itam ginnaaw jaar ngeen ci président bi moom mu tontu leen loolu loolu xel man na ci euh, gën daal waaye yéen li ngeen di dox day loo xam ne lu lu am solo la ndax euh, euh, yonent bi dafa wax ne defar bokk mboolem li ñuy def ci dul farata mboolem xeeti naafi la ñuy def ak yubaa yi ñuy def defar bokk moo ci jiitu defar bokk nag yaakaar naa defar bokki réew yaakaar naa moo ko gën a yaatu te loolu loolu loolu ci xew mboolem li ñuy def ci lu baax lépp tànk defar bokk waxuma la tànk defaru réew defaru réew bokki réew loolu moo jiitu moo jiitu ci lu baax la ñuy def lépp lu ci dul farata nga xam ne lañ suñu borom moo xam moo xam nam na ko tegee waaye da xam ne moom mi ngi nu ci déglu mi ngi nu ciy xool nu ci di ci jëfe suñu kem kattan ngir sàkkoo ko ngërëmam loolu defar defar defar bokk dara da ko caa jiituwut da ca dolli ko itam Sénégal moom eh, ci googu wàll am nañ ci bind boo xam ne du faa du du du far mukk muy sëriñ bi ku ne xam ne sëriñ bi sëriñ bi ku ne gis na ni nga xam ne ni mu ni mu ni mu ni demee ni mu jógee ba ni mu dellu see fii ku xam na ne lépp lépp lépp jàmm la bu ko neexoon muy ay wuri ay wu mas a am rek bu ko neexoon ay ay ay juddoo fi boo xam ne benn ay du ko mas a ëpp waaye bi mu jógee ba ni mu ñibbisee fii ci boroom rek la nekk mus koo boole jenn fitna lépp moo ko yoral boppam ci biir ak ci biti kooku doon exemple ci adduna bépp waxuma laa Sénégal Serigne Touba bu fekkoonte ne xam yomb woon na noonu day jar ñu ñu bind ko bind bind bind ko bind bind bind bind ba xam Sëriñ Tuubaa mooy kan déjà bind ko ba xam dundinam dund ko dundinam mooy lan loolu bu fekkoonte ne euh, adduna bépp xamoon nañ ko jàmm am fépp <laughs> loolu rek laa ci loolu laa ci <laughs> mooy li ma ci xam bu wér boo xam ne xam-xamu yaqin la boo xam ne xam-xamu dëgg dëgg dëgg dëgg xam-xam la loolu moo nekk kon réew mën a mën naa jaaxle ba mu war a des senegal mm-hmm. bi amee Sëriñ Tuubaa loolu muy dëgg te lu ñu ko gëstu gëstu gëstu dañ koy gën a gis muy gën a doon dëgg rek <laughs> noonu rek la kon nag yéen nga xam ne kon yéen ñu leen di sant yéen ñi nga xam ne da ngeen di jóg séddoo loolu def ko mu seenum liggéey yéen am ngeen dam am ngeen dam ba noppi ah, waaye nag yàlla suñu borom mii dafa ko dindi ñoo ngi ñaan bu baax ñun ci barkib Sëriñ Tuubaa yàlla sax def jàmm fii ci Sénégal saxal ko te def ko ci réew yëpp ndax ñëpp jàmm yàlla lañu rawatina lislam loolu rek mooy suñu ñaan waaw te ci barkeb sëñ bi mi nga xam ne liggéey na ci jàmm liggéey boo xam ne kenn def ko ci barkeb la ñuy ñaan waaw noonu gannaaw bi nga xamee ne sëñ bi wax na kàddoom yu matali yi wax yu jot sëkk yi te rafet ba noppi dara luñ ci dolli sax dañ ko cee wërta sañ daa fekk na ginnaaw ay bokki taalibe ñaan nañ bëggoon ñu xaw a leeral rek wala bu ñu mën koo firi fi tuddee firi te lu tax ñu di ci ñemee dara sax xanaa mooy li tafsirul quran a wax li am tafsirul quran dafa am kon ginnaaw alquran lañ mën a firiwaat ndax gën a jege sil maanaa yi ba ñi ko ñu ci bari man caa dolli ko xam-xam bu ñu xoolee sara bi ci lañ ñemee ak jéem a sara dara ak ci woon waxi sëriñ bi bu doon loolu duñ ci ñemee teg dara waaye ginnaaw dañuy firi alquran loolu la ñuy tegtaloo sëñ bi bi nga xam ne bokk yi ñëw nañ léegi yow di ko wax te mooy société civile bi di wax ne dañuy dox tànk jàmm wax ne gis nañ jiitu réew mi wax na waxtaan nañu ak moom euh, dénkaat sëriñ bi seeni kàddu ñaan ko sëñ bi la wax dafa doy sikk ndax sëriñ Touba rek ci la joxe misaal xam leen sëriñ Touba ba mu jógee ba ni mu ñibbisee Touba ci jàmm rek lay dox jàmm rek ko yitteel fu mas a jaarit jàmm la fa doxe te sëñ bi leeral na ko bu fekkonte ne sëriñ Tuubaa day fayantoo wala mu woote leneen nee na kon ba nëgë ni aw ay amoon na ca woo xam ne kenn du ko fàtte ba baat ñuy tukki mm-hmm. waaye sëriñ Tuubaa jàmm rek ko mas a yitteel jàmm la mas di dox jàmm la mas di ñaan loolu la sëriñ Muntaxa wax léegi loolu nag xanaa bu ñu ci amee lu ñuy gën a firi rek mooy fàttali ñëpp ne sëñ Muntaxa gannaaw jàngal na sëriñ Touba ñaan na ci barkeb sëriñ Touba loolu de luy am ba noppi lay doon kenn ku ne nag na ci jéem a def wàllam jéem caa dox ay tànki jàmm jéem caa dox ay jéegoy jàmm te loolu mooy lan gannaaw daa lu ñuy bëgg a xëccoo kenn ku ne bëgg caa jot damaa defee ne gannaaw nu ñëpp noo bokk réew mi kenn ku ne lay tax la ngay wut boo ko amoon it mën koo jariñoo ci jàmm mooy nga jiital ci jàmm te dox ci bëgg te bëgg ci jàmm te dox ci jàmm ñëpp a ci yem nag réew mi moom démb rek wax naa ko fi juddoo fi leen dëkk fi leen fas ku def sénégalais nag boo xam ne gëm nga seg sénégalais laa wax kon kooku ñun ñëpp Sénégal jag rek moo nu war a yitteel bëgg fa jàmm rek moo nu yitteel war a yitteel kon ñi nga xam ne dañuy wut bu ci kenn jombale sa bopp dara waaye kuy wut itam na ngay rafetal wutin ba boo amee itam nga gëm ne yàlla la jox ba ñàkkee nga gëm ne yàlla la xañ ka am itam ñi gëm yàlla ñëpp nangu ne kii yàlla jox na ko ñëpp bokk bëgg jàmm man de loolu jàpp naa ne loolu la bi bëgg loolu moo ko tax di wax bu kenn moomale nag ne di war a bëgg jàmm bàyyi keneen ñëpp war a bëgg jàmm ñëpp ko war a bëgg wut ñëpp ko war a bëgg di ko dox di ko wax di ko yéene di ko xalaat te boobaa jàmm ji day gën a yokk rek day gën a yomb ndax Serigne Touba sàgg fàggu na lépp Serigne Abdoulaye waxoon na ko fii ne réew mi moom jàmm rek ka fi am ku fi indi asaw ayit sa sa bopp lay këpp waaye nag wala fi dañuy ñax ñax goo daa lakk ku tooy te kam yi këpp ci bopp mi kenn yéene wu ko kon nan yéene lu baax te yéeneente lu baax te bëgg ko rek te da ca ndox da ca wax di ko def mu ko defee lu baax rek la di am te loolu Serigne Touba wax na ko ci njaareem gii mag ñu ko siyaare ji mu ne maa ngi leen di dénk de leen yéene lu baax di ko wax di ko def loolu waxtu wu ne dañ ko war gànnaayoo di ko jëfandikoo di ko bàyyi xel bu ci nekk ñëpp nekkee jàmm rek kay am te bu jàmm amee ñëpp koy jariñoo kon na bàyyi loolu la suñu bëgg a wax kon nan bàyyi xel ci loolu nun ñëpp te doxee ko noonu bu kenn jàpp ne nag yaa ne ci yoon sa moroom a nekkul ci yoon ñun ñëpp kenn ko ne jéem a ne ci yoon rek te yéeneente ko te bokk te bokk ci xalaat bokk di ko def boobaa itam suñu borom dimbali na ci barkeb sëriñ bi noo am jàmm te sëñ Muntaxa ñaan na ko te sëriñ Tuubaa ñaanoon na ko kon ku ci góorgóorlu jàmm ji fekk la fa nga nekk ko xalaat leneen yéene leneen nag sa wàll man laa fekk si biirum nekk nga wéete nga wéete ko yow dong te boobaa dana métti ci yow kon nan bokk xalaat bokk bëgg lu baax ndax rek lañ ci amoon